Les populations de Palmarin sont très déterminées à combattre le projet AgroSel. Selon ces dernières, ce projet va mettre en terme toutes leurs activités génératrices de revenus. ñun dañuy dem yëngu ci xorom bi di yëngu ci paxañ di yëngu ci yoxos bi luy produit halieutique rek ñu ngi ciy yëngu projet bi amaluñu njëriñ ndax buñ fi bàyyi be projet bi am mooy sàmm dina fi dee mbéy dina fi dee tourisme dina fi dee. te ñun suñu yaay ak suñu papa yi ci mbéy mi tourisme bi ak ndapp bi si la ñu jàngalee lu ñu xam moo tax bëgguñu ko bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg te du mos a am loolu la ñu wax ñun Sonac Palmarin yëpp. Le collectif pour la défense du patrimoine de Palmarin exige l'arrêt immédiat du projet à Grosel et compte porter le combat jusqu'au bout. ces maires qu'on a élus il y a moins d'un an, ils ont promis monts et merveilles. Ils ont promis de protéger l'environnement. Ils ont promis de créer des emplois. Ils ont promis de développer la zone. Après moins, en moins d'un an après l'élection, ils reviennent nous dire qu'ils vont donner précise mes mots, donner 5000 hectares à des Indiens pour du sel. C'est une trahison. Et remarquez bien, les deux maires qui veulent vendre donné ces terres-là, aucun d'entre eux n'a hérité du, de, la, de la terre. Ces populations s'opposent catégoriquement à ce projet. Il invite le maire à restituer les 5000 hectares qu'il a octroyés à Agrocel.